wajalilaayi maskani tuubaabaat ñu ngi leen di nuyuwaat baax ci turu Touba ca kanam ci njëtal sëriñ Abibu moom sëriñ Falilu waaye ci turu commission bu am maanaa bi ñu duppee ko commission sociale ci njiital sëriñ Muxtada mbake moom sëriñ Abdul Fattah mu sëriñ Fallou ak boolem mbokk yi nga xam ne nii ñoom la ñu àndal. commission sociale di kuréel goo xam ne ci biir Touba ca kanam la nekk di liggéey ci turu Touba ca kanam mbokk yi commission sociale yaakaar naa ne daaw lu toll ci fukki million ak ñett balla yaakaar naa loolu la def nañ ko ci dimbale doomu aadama yi ren yaakaar naa ne euh, sóoraale nañ lu ëpp loolu waaye li ci gën a dal xel mooy. sëriñ mu Mountakha moo jiitu ci liggéey bi joxe ci téeméeri basang muy ay basang yu mucc ayib yoo xam ne nii ñu ngi fii nag ànd ak Serigne Kab Fall moom it jàpp ci liggéey bi. su ngeen gisee lii ci sunu ginnaaw ak li weesu dana leen wér ne leen sëriñ Cheikh. murid yi nañ nañ xulli ku teg xulli seeni bët te xam ne nag lii sëriñ Touba ko nangu lii du njàmbaar de sunu maam yëpp kenn ku ci ne danga ngaa jaayante woon nanu jaayante sëriñ Cheikh. xam ne Touba ci kanam commission sociale moo ñëw ànd ak waa daara yi. sëriñ taxaam mi nga xam ne moo fi sëriñ Touba nag te mat ko sëkk bi ñu tàmbalee liggéey bii moo ci njëkk a joxe téeméeri basang te noonu la koy defee ci sociale yëpp kon nag ànd koog njabootu sëriñ Touba gi nga xam ne ñooy ay rakkam kenn ku ci ne def nga loxo ci commission sociale. du ñaar téeméer yi ñuy laaj lépp lu ñu war a def dañuy naan kat commission sociale. soxla naa def nangam ci jumaa ji commission sociale soxla naa dem ci sancaan yi dimbale leen ci ceeb commission sociale soxla naa dimbale daara yi kenn ku ci nekk làmb sa poos ne man de lii laa ci yéene def ñu dajale ko ñu dajale ko loolu mooy yegg ci lim boobu ren commission sociale bu weesoo liggéey bi muy def ci biir daara yi ci di leen tabaxal ay mbaar ak i néeg ak i wanag dafa jaayante it ut ay basang yoo xam ne mooy basang yooyu nga xam ne dañu koy lem ñetti lem mu yaatu lool te daara yi yittewoo ko ñu fas yéene cee faggu lu toll ci junni basang ngir lan séddale ko daara yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bu sell bii basang yaa ngi nii nag ñu ànd ci ak jàppandalu ki nga xam ne mooy Serigne Kabou Fall moom kenn dootu ko présenté eh, di waa CCTM kon commission sociale ñoo leen di ñaanal jàmm ak xéwal وجرني فيه إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم le ne tey ñu ngi fii ci daara jaalibatul maraaxib kër ci quartier Bustaanu Arifina waa Touba ci kanam nag ñoo fi ñëw seet si daara ji indi leen ay basan muy lu am solo loo xam ne lii waa daara ji yëpp bëgg nañ ci sant nañ ci te ñaan suñu borom ci barke Seexul yi mi tax ñu di ko def yàlla na leen fay ci barke alxuraan li ñuy liggéeyal suñ Tuubaa itam ci dëkk bi ñëpp gis nañ ko ñëpp yëg nañ ko kon ñu ngi ñaan suñ borom gën leen tee dafa ndam. fii ñu ñëw nag fu yayoo li seet la fu yayoo yayoo siyaare la ndax Sëñ Aafi Buso mu fi nekk daa bokk ci doomi suñ Buso bi sëñ Mbusoobe ba mu laata am soxna dafa waxoon ne bala maa am soxna damay ñaan suñu borom ba mu xamal ma ne doom ju ma am wàll yu lay doon góor ak jigéen mu door a am soxna kon doomam yëpp sëñ Mbusoobe doomam yëpp ay wàll yu lañ sëñ Tuubaa dëggal na ko ndax nee na ndab yi ma sëñ Mbusoobe jox yëpp damay fekk mu raxas ko ba set ba nga xam ne duy rek a ci des parce que wàllu wilaaya gañ juddwaale moo moo tax loolu kon barabu suñaaf bu su ngeen ñëw sant nañ gërëm nañ waaye fekk na daar ji soxla woo ko lool ndax euh, benn basang lañ fekk mu des fi doon nañ am ay basang ci ay euh, sàkku ndimbal rek comme ni ngeen ñu dimbalee dañ daan sàkku ndimbal rek pour am ay basang léegi basang yi fi nekkoon na xar na ba benn basang moo fi des kon euh, bi ngeen dikkee fekk ngeen basang bu daara ji soxla ko lool lool lool lool mi ngi mel ni tey ku maroon bëgg naan ñu tànq pot bu sedd guy na naanal mi ngi nii kon ni ngeen ko defee yàlla na leen ko suñu borom fay noonu niñ ko niñ fekkee ñu soxla ko fi yàlla na leen ko suñu borom fay noonu bi maraadi ixtada fi sirri wal jari yakunu muqtada huwa allati haajara lil madina bi amri rabbi fasaana diina wasilati li maliki rafiqi nuyoo bi nag ñu ngi ñu ngi leen di nuyu ci turu daara soxna Muminatu bintu Cheikhul Khadim li nga xam ne fi ngeen ñëw tey ñu leen di nuyu ci turu idaara bi ak jàngalekat yeeg murabbi yëpp yi fi nekk ci daara ji ñu ngi leen di nuyu ci seen tur yéen waa Touba ca kanam eh, commission bi nga xam ne mooy commission sociale njiital Cheikh Mouhamadou Mourtada ibn Cheikh Abdoul Fattah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di rafetlu tam seen taxawaay gis nañ yàgg nañoo gis seen ay taxawaay ci ci dëkk bi taal bi Serigne Touba yi wante fii ngeen ñu fekk tey dafa bokk ci yi nga xam ne moo gënaloon Serigne bi ndax Serigne Touba dafa wax ne lépp lu waay mën a nekk mën ngay njortu di yaakaar ba xam ndax sama bëgg la wala déet waaye képp ku nekk ci téereb suñu borom bi di ko jàngale mën ngaa waat ne yaa ngi ci li ma bëgg rawatina boo nekkee ci biir dëkk bi di ko fi defee. daara ji ñu ngi koo sosoon le 6 février 2013 mi ngi toll ci juróom-benni at boobaak léegi fukki dong ak juróom-ñeent ñoo fi tareegun alxuraan am na fi ñu bëri ñoo xam ne tam wàcc nañ ñi ngi ñi ngi gën di am yaakaar daal ci ñoom loolu yëpp nag ginnaaw bi suñu borom wéyee ci ndimbalu jàngalekat yi ak seen taxawaay bu rafet. ndax dañoo wax ni al ummu madrasatun isa ahdataha ahdata chaaban tayibal araq mooy soo defaree benn góor benn góor rek nga defar wante boo defaree benn jigéen ab société nga defar ñun nag ñu bëgg a liggéeyal Serigne Touba ci côté bii kon xëy na yéen a ngi jàpp social bi wante ñun yàgg nañoo gis ne Touba ci kanam mooy ñu defar jigéen ñi ndaw ñi ñu yar leen jàngal leen kon ñun ñëpp dañ ci jàpp def ci suñu passeef suñu kemtulaay kàttan taal bi Serigne Touba yëpp ñu xam ne lii liggéey la boo xam ne képp ku ko def mën ngaa war ne ci loxob Serigne Touba nga ko teg te dara gënta dal xel loolu yàlla defal ndimbal defal ñu ci tawféex bépp mébét buñ ci am bii rek biti yàlla nañ suñu borom def lu kawe njort barke alxuraanul karim huwa allazi haajara lil madina bi amri rabbi fasaana diina wasilati li maaliki kon mbokk yi ñu leen nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel bu baax a baax di gis nuyoo beeg siyaara bi saahibul fadila Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullahu taala wa raahu di siyaare waa tubaa sa kanam bu baax a baax ci commission bi jëm ci wàllu social sëriñ Mourtala mu Caadu Fataa mu sëñ Fallou jiite ko ànd ak sëñ Moustapha Dieng ñoom ñii nii ñëw fii ci daara yi sëriñ As Gede mu leen ko tuddee ndax mooy joxoon pàkk fii ci Darou Salaam bu soobe depuis 2009 ñi fiy jàngale am xale yu bari fi wàcc yu fi bari mokkalee fi kon bu waa Touba sa kanam ñëwee nag jàppaleñ ci ndimbal lii nii. kon demee ne ab bunt la ci jàppale yoo xam ñu ngi koy séntu ci daara ji ñooy ñaan yàlla àggale seeni taxawaay àggale seeni i yéene ba ci liggéey bi Sëñ Tuubaa daan ñaan mbooloom di ànd di liggéey di ko liggéey ci dëkkam bi yàlla gën cee boole mbooloo mi te gën leen a dëgëral ba fañ bëgg a àggale yéene ci liggéey Sëñ Tuubaa ñu àggale ko rawatina daara ya xam ne dëkk moom daa yaatu waaye daara ko sañ ki ñoom na ndoo ko bañ bàyyee xel ni dëkk bi dëkk bi dëkk daara la lépp lu fi am rek daara yaatu rek boot leen waaye daara moom mbir mi ñoom na xam nañ ko moo a sax suur ñu ñëw ci wàllu ay yéeree ki ay basang ak yu nekk di ko jàppale daara yi ko yenn yàlla àggale seen yéene taxaw leen baax a baax sëriñ asgare ba mu ñu koy joxit boobaat fii ñun rek ñoo fi ne ko am mbaar la bi ñëw nit ñi door dëkk kon yaakaar naa moom itam mi ngi ko joxoon en tant que sëriñ asgare nekk doomu si wut maamun si maamun nekkoon kenn ci yoon wi yoonu murit loo joxe pàkk fii ne lañ fiy jàng alxuraan ñu dem ba waa Touba Ca Kanam ñëw jàppale ci ndimbal lii nii demeen ko moom tam xolum dana seet fa mu nekk incha allahu taala si kon ñu ngi nuyoo ci turu Touba Ca Kanam nooru daaray ni di jot li say kàddu soxna si nee mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen eh, sant bu baax ci jataay bi ak taxawaay bi ak pastéef bi di wax nag ne nun day Mbàkke Bàlla doyunu ci yow seere sax xëy na waaye dinañ ci wax li xam man ndey ba ma yàlla indi sa waajur bu baax wax ba defe naa ne eh, at yi néew na lool ci yow waaye la ma fekk mu yor ko ci loxoom mooy alxuraanu karim loolu ñuy wax bërit buñ ko masaan def mooy njëkk a weddi ji te ba naga nii sax jataayam bii nag bu waajuram desuwaatoon du ko soppi yëngu ci lenn àdduna deful dara yu àdduna yëngu ci dara lu alxuraanul karim jàngale yore daara defar doomu aadama tey xamal ñëpp nag ne man de ci Touba ca kanam ci laa bokk waaye maa ngi ci woo ñëpp am na fi ñu nekk sama ginnaaw danañ génn ci rosi yi waaye nag liggéey bi it ku deful dara doo ko man ñu yendoo xëy suba di séddale ba ngoon jot mbooloo moo koy mooy tax ñu man ko te dañoo bëgg a def yeneen yu dul basang yi xeeb nañ basang yi dañoo bëgg egg ci tabax ay daara di fa def courant ak ndox ak lépp te Touba ca kanam bëgg nañ ko bëgg nañoo defar dëkk bi bëgg nañoo dundal alxuraan bëgg nañoo dundal diine ak islaam kon képp ko xam ne yaakaar nga Serigne Touba man ci tout sama tur man ci waa Touba ci kanam maa ngi ciy soññe yéen ñëpp ngeen di dagg ci rosi par weer ndax lii kat nag kenn naattableetu ko lu ne faa nga du kenn duur ko jeex fenn kon nag ñëpp dagg reçu Touba ci kanam ñaari téeméer par weer yomb na li ñuy yàq di ko jënd crédit connexion moo ëpp foofu li ñuy def ci Touba ci kanam te moo loolu mooy tax ñu man lii man leneen ak lu ëpp lii Touba ci kanam dañoo war a dem ba daara ju ne sax ñu gaar fa oto ak la mu bëgg loolu nag liy tax ñu man ko yomb na ñaari téeméer par weer kenn ko ne dagg ko ab reçu wala nga den ak ni mu du ko dagg bu ko ko loolu wax ndax ku ne da nga xëy da nga nga naan da nga ndékki kon ñaar téeméer yooyu buñ ko gàntooti ndax nun bu amee jàmm sëñ Tuubaa ko may yàgg naa ko wax fii ci Mariane de ne bu amee jàmm sëñ Tuubaa na ko may nun ay njàmbur njàmbur lan jógee njàmbur indi woon fi ay xotti seng ak yu solo tey jii kër goo dem tey doo nañ nga dugg loolu lépp nag sëriñ Tuubaa ko baaxee kon nañu dagg rusi yi Tuubaa ca kanam nañ koy dagg xayraka fi daarayni laa yaxaabu wa innani yaa barru yaa kariim دائن وعن شكرك العليم منذ جسبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك barab bii ñu nekk nag mooy daaru alimul xabir ndaam nekkoon béréb bu Serigne Touba bu Serigne Touba fonkoon bokkoon ci daaru yim daan sos bu dul benn wala euh, ñaar wala ñett di ñaar ñaare xam naa ginnaaw Daaru Salaam daal jàpp nañ ne gii mooy ñetteel ci daaru yi. tuddee woon ko Daaru Alimul Xabiir Daaru Alimul Xabiir nag bu ko ko tuddee am na lu mu tekki. ndax wax na ne Sëriñ Tuubaa li ñuy tudd Daaru Rahman Daaru Marnaan Daaru Nangam benn tur yàlla lay teg waaye bii dajee teg Daarul Alimul Xabiir ñaari turi yàlla te yëpp di tegtale euh, xam-xam kon dafa doonoon ab dencam denc bi it xam-xam moo si jiitu woon. suñuy mbokk nag fekkuñu fi muy waa Touba ca waa Touba ca kanam Serigne Habib Mbacke moom Serigne Fadlu jiite ko xam dëkk bi lool euh, fonk dëkk bi lool. Euh, am benn commission bu ñuy wax commission sociale Serigne Mourtala Mbacke moom Serigne Abdoul Fatah moom Serigne Fadilu jiite ko mi ngi euh, taxaw ñu andi fi ay ndimbal ndimbal yi nag ay basang la te kenn ku xam ne daara. la ca solo ay téere ak i basang dara ëpp ko solo ndax il faut ñu am fu ñu toog kon nag ñoo ngi leen ci sant bu baax a baax di leen gërëm commission sociale boobu it ñu di ko gën a xamle xamle lene képp koo xamante ni eh, xam nga Touba ca kanam am na commission bu ñuy wax commission sociale Serigne Mourtala Mbacke jiitu ko te li ñuy def fii tàmbale tàmbalee wuñ ko fii te duñ ko yemale fii tàmbalee wuñ ko ci basang it te duñ ko yemale ci basang loolu mooy seen seen yéene فقلت ذا سكر وساتوسل بالمصطفى صفي عين الرسل di leen xamal ne lii moom ñoo ngi ci biir te fas yéene ko déggit war a dugg ci biir ndax liggéey sëñ Tuubaa moom kenn ku ne mënut a ber di ko def dañuy mën a àndandoo rek di ko def kon nag ñi ko jiite moom dañ fas yéene topp ci moom te lu ñu am rek def ko ci ndax liggéey loo xam ne jëm ci ñu néew doole ñu yor ay daara loolu moom ab liggéey ëpp ko solo ak yeneen ak yeneen yu teg suñu bët ci dëkk bi kon nag moom ñu ngi leen di sant di leen gërëm li ngeen di yot nag rëy na ci ñun lool ndax ku yor daara moom yor ay xale ndox ñun daara yi xale yu jigéen rek lañ dajale ñoom la ñu yor kon nag ku leen yot lu mel nii itam dañ sant bu baax di leen gërëm te da noo gën a soññ nag ndax lii moom kenn waruñu koo gën a def waaw nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di siyaare sañ abibu mi nga xam ne moo jiite liggéey bi waaw di sàkku ci moom ay ñaan sàkku ci yéen ay ñaan itam nag ndax li ngeen def lu rëy la waaw ndax ñu liñ bëgg a liggéey ci Touba daal mën ko ànd ak yéen def ko jërë ngeen def وببنيع وبناتهما ndax daara ji daara suñu soñ bu la yàgg na fi mm-hmm. mm, alaaji suñu alaaji bari mii am na doom joo xam ni soxna maam bu ba mbàkkam suñu bu sa matee bàyyam mm-hmm. mooy ndeyam ñu koy wax galas mm-hmm. nekkan na fi ma loolu xam na ko sëñ bi wax naa ko léegi waxi Mamoun Diouf maanaam biir dëkk bi nii ko kër gu ñu fiy siyaare ku bokk ca kër ga ku ku ko ku ñuy siyaare ku ku yaroo ñànk am na am na fi ba biir yoonu mu daj xam kon bu ñu nee am na lu def di ko tudd ci daara tamit benn kees ci kees suñu soñe bu yi nga xam ni kër ga moo demoon ba ba ba sar sar sarcement ba bari suñu soñe bu wàññi ci dara def ko fii mm-hmm. doxal ba pamit ba ñëw fi mm-hmm. nii bi ñu bokk toog fi la daa mel mm-hmm. ànd fekk ñun ne fi bu ñu nee am na lu ñuy def jëm ñu tudd alxuraan ba noppi bu ñu ko waxee ba àggal bu ñu ma laajee ma ne man loolu yëguma ko woon wala wala ak suuf ñànk loolu ña ña xam cosaanul biir dëkk bi xam li fi borom bëgg daañu xam ne lii moom melut na suñ bëgg waaw ña ña nga xam ne barki démb lañ juddu ak dugg ci euh, ay euh, ay ay internat ak ak kër ya daara ak xam ne lu baax a ngi nii ba resté ca mën a dàkk bëggu suñ tubaa ñu di ko ca dàkk ñooñu ñoom lu ne mën nañ mën nañ naa doxee te it lu ne jig na leen ndax nit koo xam ne bi mën naa am moom seen askan moo ci dëkk ber daara kooku ba demee ba caag ñoo ne daara gi doxatul dañ ne daal doon góorgóorlu kat waaye du wàllam waaw daa bëgg tëgg loo xam ne dañu naa ba ñuy fon na dëkk bi ñu ci neen te loolaa ngi fi ba tey te suñu soxee bu fi mu ne daanaka bokk nañ nangu ni mooy doomi siñ tubaab yi féete ba suñu tubaab ci alxuraan kese te suñu soxee bu moom dafa laaf suñu turubaay ci alxuraan laaf goo xam ni mu ne sute indi li ñuy wax palmarès ci suñu soxee bu dagg sama bàyyi wàcc palmarès ba baax mun a nekk ñim ñim jur mënuñu ko ñim yar mënuñu ko ñim bokk li mënuñu ko ndax li koy def mooy da du deret day liggéey da maam du problème mu deret ak askan day problème mu liggéey waaw waaw day day problème mu daal maa réalise lii te suñ suñ la ci am ca membre bu bu bu mën a ber bu mu mën a ber fi barab mu mën ko caa wóotu xam nga kon nag bu ñuy nee dañuy am lu ñuy def di di di ci tudd alxuraan di ci tudd daara te mën a tàllal sama sama loxo wax ci kanam Sénégal nii yéene fi jëkk indi lu ñu ne daaraa ko tax a jóg ci biir dëkk bii ci wet gu mu mën a doon nag du lu état di lu leneen waxuma nag lu mel ne ay si mun tax ak mbàkk-mbàkk yi nga xam ne moom dañuy toog ba si yàgg ñu ni fabal lii bul ma ci daara ja mm-hmm. waaye lu ñu ne mbooloo sangam ñoo dajaloo mm-hmm. nga xam ne turu mbooloo la mm-hmm. wala loo xam ne bii ni da koy def ni lii daara yi yëpp ko bokk ñoo tax ma di ko joxe muy jaar ci ay loxo am ca ku ñu may tàllal loxo ni yóbbu naa ke nangam ñànk amut ah, waaw ci bisin sayu làqoog léegi xam nga kon léegi tegtal la ci ni lii lii am ñu ngi bari waaye ndax ni muy doxee ne la wala noona mooy lëj-lëj ba ñoom ñii fi nekk di di njaboot ak suñ tubaa gi ku ci dul suñ baara ak suñ bas suñ basiru muy ña feeñan njëkk njëkk eh, géej gi ku ci dul ñooñu rek seet loo mas na fee ne waa sa sët loo xam nga kon léegi loo def ci daara yi ñoo ñoo ko defal waaw doomi seex yi noonu léegi nag mooy tax fi ne bu doon benn keesu miskit itam day gaaw a réer man waaw day gaaw a réer ndax man buñ ko yóbbu woon feneen it dana mel ni am naa ndax man damaa war a am bay joxe nit di jaaxle di ma laaj ma war koo jox léegi kon day mel ni man fu ñu joxee mel ne man lañ jox waaye nag dox ci tànk daal ni lii kat mën naa am ñànk war na cee mën a am ko ci nekk ku leen téléphoné ndax ma lu ñu nekk ci nit téléphoné la wala mu ñaante audience wala mu ñëw déposé ko mu door a am looloo jeexal naa ci waaw ndax suñu Saliou mi ma mi may liggéeyloo moom la doon tere jóg wuti dara waaw loolu daf ma ko tere woon ñi may jàngal suñu wàllu seen i waajur dara ñi nga xam ne ñooy liggéeyal suñu tu may liggéeyal suñu tubaab ñoom suñu ma leen laaj dara lu naa toog rek lu ca ñëw ma xam ne lii la yebal waaw suñu baay it xam nga ci loolu la neen mooy tax lii day gaaw réew man ñu ngi leen di nuyu ci turu soxna may mu Cheikh Abdou mbakki Mbacké toog tey nag daayiratu Nuuru ni Touba ci kanam defati lu baax lañ daan defati mooy indi ay barkeel yu basang indi ko ci daara yi Serigne Cheikh Jaxate te soxna may Lahad Mbacké mi taxawalaat daara ji daara ji nekk Touba Belal wax dëgg yàlla muy doon loo xam ne doo nga yittewoo nañ ko lool ñoom xàmme wuñ ci xàjj ak seen dañuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek fépp foo xam ne xool nañ ne foofa daara ji yàlloo na loola rek ñu indi ko fa loolu nag mooy dox ba tey jii ñu indi ko ci daara ji ci turu soxna may laxat bi nga xam ne sin mooy responsable daari alxuraan ji man mii nag maay ki nga xam ne maa fa nekk yor daara ja teg fa ay jàngalekat ñu di ko jàngale te mu doon loo xam ne sin wóor na ma ne andi nañ mbir moo xam ne sun soxla nañ ko lool te yittewoo ko waaye nag Serigne Touba mi tax ñuy dem yàlla leen gën a taxaw Touba ci kanam di gën a jëm ca kanam dëkk bi jëm ca kanam liggéey Serigne Touba bi jëm ca kanam. ñëpp a ci war a jàpp bi ko tollantiku nag mooy sociale bi moom social bi moom wax dëgg yàlla ruxsa la boo xam ne daal nit ñi war nañ koo seetlu ndax euh, dimbali ku sonn ku feebar nga faj ko ku xiif nga jox ko mu lekk ku rafle nga may ko ay sër ku mar nga yët ko ndox ah man de yaakaar naa liggéeyal yàlla nag foofu la mën a yem. ndax yàlla moom léppam ci jaamam ñi la ko def te it nag lu waaye lebal jaam ñi yàllaa lay fay kon nag wax dëgg yàlla man daal yaakaar naa ni ku sàggan ba sa dara du ci dem man de man soxna may laxat de yërëm naa la lool nit war na cee def lu mu mën def ci lu mu mënut def ko ngir sant yàlla boromam ak sant Serigne Touba mi nga xam ne moo ñu fi dajale kon ku am xéewal ku ne war nga caa dindi jox ñi amul ndax àddina kat loolu rek a fi ne sax yàlla moom li mu digal mooy innamal mu'minuuna ixwatun faslihu bayna ax fa aslihu bayna axawaykum mm-hmm. ah ba pare nag ñun ñu bokk sëñ Tuubaa boole ci mm-hmm. kon ñun wax dëgg yàlla buum gi ñu boole bari na lool mm-hmm. kon war nañu di dimbali ñi nga xam ne noo leen tane ci li nu am waaye bañ a xeeb dara lu waayam rek ndax kat yàlla moom eh, xee li ñuy wax xeebul yéemul moo baax loo ko jox loo joxe mën nga koo naw du la ko nangul mën nga koo xeeb muy lu rëy ci moom kon na ñuy joxe joxe bu ànd ak pastif te yàlla rek tax ak jëmmi sëñ Tuubaa mi fi dajale ay cër la yoo xam ne Tuubaa ci kanam ku nekk war na koo jàpp waaye man bu euh, damaa defee ne ci ñi ko war a gën a jàpp bokk maag ñi ma àndal soxna di koo xam ne ràññi ci liggéey bi lool euh, ay ndajeem yu jëkk yi ci ëpp man maa daan président jataay daan ci yëkkati ay kàddu dañoo dem ba sama jot jot maytuma ko waaye bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo doon samp sampam boobee soxna Fatou Diagne Kisaalika moom yàlla dogal ndax ci moom lay jaar sama cotisation ndax ni ma ko waxee léegi sama jarbaat la sama euh, sëri sëriñ la moo tax ay ndaje moom lu ci bari danaa koy teewee waaye ci moom lay jaar li nga xam ne moom la ciy duggee. mu wëlbatiku ni ma ko waxee léegi Serigne Diop mi nga xam ne mooy sama mag ñu bokk ndey ak baay ak Basiir mi topp ci man ñu bokk ndey ak baay ñoom ñaar ñëpp nekk ay jëwriñ ci Italie ci liggéey bi kon liggéey bi sama liggéey la te bu yooyu yëpp amutoon ni fekkente ne ay taalibe lañ te taalibe gi dëggu ci sun ci noonu ci suñ diggante ak mbooloo mi jóg taxawaay yi mu am ci bëgg a jëmmal liggéey sëriñ bi benn taalibe sañu ci selawlu wala mu sañ cee jàpp ak njàmburam wala boog man sañuma ko kon daal liggéey la boo xam ne eh, képp ku ci yëngu yaa ngi liggéeyal Serigne Touba képp ku ci yëngu yaa ngi liggéeyal alxuraan képp ku ci yëngu it bokk ci nga xam ne li Serigne Touba waxoon ne dëkk bi mooy ab dëkkam te ku ne xam na ne boo masaan ñëw bi mu nekkee njaareem it ñu ne diw ñëw ne mu ne Touba la jógee da ngay gis xar kanam gi belli mu soppi waxtaanam waxtaanam neex lool ngir lan yaakaar ak yéene ji mu amoon ci dëkk bii rawatina ñun ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu daara mu waxoon ne moom li doonoon itteem mooy dëkk ci dëkk bi di fi jàngale alxuraan di yor doomu jullit ñi ndax dañoo wax ne am na saalum saalum bu ma ñëw ne ko mbàkke ñaanal ma gimiñ daf maa jàpp ñu wax ne sëriñ bi dafa dar gimiñ gi moom it di muuñ wax ne may de gimiñ daf maa jàpp ñu ne ko mbàkke yow nu la gimiñ mën a jàppe ma ne gimiñ daf maa jàpp ndax li doonoon sama yéene mooy dëkk Tuubaa di fa jàngale alxuraan di yar doomu jullit ñi te suñu borom nattoon na ma dëkk fa far defuma ko kon ñi fi nekk di yëngu ci wàllu googu ak ñi leen di jàppale ñooñu nañ xam ne ñi ngi ci bëgg Sëñ Tuubaa bu ñu ko yëgee ak bu bu rëy rëy la ñun daal li ñaan mooy lépp dëkk bi suñu boom defal leen tawfeex ba ngeen ba mu teg ci seen loxo te dafa leen kàttan goo xam ne yéene ji ngeen am ci dëkk bi na ko sëñ Tuubaa ñaane mu mel ne Màkka ak Madina ngeen taxaw ko ba mel noonee yàlla yàlla nangu liggéey bi te gërëm ko te eh, boole nu ci ña ànd ak yéen ba jëmmal liggéey sëñ Tuubaa bi ya xaaliqi yaa sifaati laka stakaytu kasratan afaati wa anta sul jalaali wal ونجني وأولني مرامي waaye di leen nuyu ci turu kuréel gi nga xam ne nii mooy Touba ci kanam te sëñ Abibullahi Mbakke mu Cheikh Amadou Fadal nekk ca bopp ba ànd kook ay magam ak ay bokki taalibeem manees na cee tudd alaaji sëriñ tàkku mu Cheikh Amadou Fadal ak sëriñ Abdou Lahad mu sëriñ ak sëriñ Abdou Fatah Guèye ak mboolem mi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi ñëpp rawatina commission bi nga xam ne moom la ñuy tuddee social te buñ ko waxee mooy al infaq fi sabilillah mu doon digal loo xam ne suñu boroom moo ko digle mu mel na faratala ci bépp doomu adama rek rawatina ab jurit li la yàlla dénk waxtu nekk nga di ci yëkkati di ko delloowaat ci sunu borom mi la ko joxoon te loolu sunu borom wax na ko ci alxuraan wa aatoohum min maalillahi lasi ataakum di leen joxe ci alal ji nga xam ne yàlla moo leen ko jox mu mel ne képp ku yàlla jox alal alal ji moomoo ko waaye dala koo dénk olof sax day wax ne yàlla mayewul dafa able moo tax sunu borom di wax ne na ngeen dundale ci alal ji nga xam ne man maa leen ci délégué wa anfiqu mimmaa ja'alakum mustaxlafiina fiihi mu doon lu am solo loo xam ne nii ñëpp la war waaye fii lañ ko soxlaa fii lañ ko gën a soxlaa mooy dëkk bi nga xam ne mooy dëkkub sëriñ bi eh, ñu doon amal nag yëngu yi nga xam ne social baaxoo na ko def ci at mi ci anam yu wuute ci sancaan yi ak ci néew ju doole yi nekk ci dëkk bi ci seen wàllu wér yaram ak ci eh, taxawu waa dëkk bi eh, ci màggal gii nag ñu doon am ay taxawaay yuñ doon def jëmale ko ci wàllu daare alxuraan yi ci taxawu leen ci lépp loo xam ne daal dana koy yittewoo ndax kenn réerewul mbir wala ñu bari réerewul mbir ne dëkk bii di tuuba dëkk dëkk la boo xam ne daara la sëriñ bi ba mu koy sanc daara taxoon boo demee ci xasidaam googu mu ñu wax raaya tamit wax na fa lu mel noonu te ay mbindam tamit leer na ca nañ ñi doy na sëkk rek li mu wax ci nooru daari ni wajal bi jaahi muntaqa ayaati rihaayal qur'aani sir ayaati am na faneen fu muy wax itam ne jaamu yàlla yëpp baax na waaye jaamu yàlla gi nga xam ne nii nit ki da ko def ci jàng alxuraan bokk na ci jaamu yàlla yi gën tukkeem bu siiw bii nga xam ne tamit moom la defoon ba mu koy def ba mu koy def manees naa wax ne àndut ak kenn ci saayir waaye ki mu wax ne moom la àndaloon ginnaaw bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak ay saxaabam mooy alxuraan loolu taxoon na commission sociale baaxoo dem ci daara yi ci ci jamono ju nekk ci màggal gii nag nga xam ne mooy bis bi nga xam ne ni moom la sëriñ bi waxoon ne bu dellusee képp goo xam ne mbégam mooy sa mbégte nanga ko ci santale yàlla ñu ne woon nañ ci jéem dàkk mbégum sëñ bi ci daara yi wutoon lépp lu daara di soxla la ca gën a ràññeeku nag doonoon ay basang basang yoo xam ne dañ tawfeex diñ ci am mooy biñ ko tàmbalee Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne nii moo fi nekkal sëriñ bi te mat ku sëkk moo ci njëkk a jiital loxoom tàmbalee ci lu tolloog téeméeri basang tolloog ci xaalis un cent cinquante mille duggam googu mu ca dugal loxoom nag barkeel ba mujj nañ am lu tolloog juróomi téeméeri basang séddale ko téeméeri daara daara ju nekk ñu jox la juróomi basang yooyu nga xam ne moom lay lem ñetti lem yi ba ñuy tàmbali itam ni ko séddalee woon mooy tàmbalee ko ci daara ji nga xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko santalal bopp san sancaloon boppam daal fa sëñ daam Abdourahman Lo muy daara alimul xabir foofa lañ tàmbalee ci séddale ba ngir di dàkk mbégum sëñ bi rek doy na sëkk nag daara alimul xabiir koo xamut ñu ne la daara jooju njabootu sëriñ bi njabootu boppam nga fa lañ jaar buñ ci tuddee Cheikh Mamadul Moustapha ak Cheikh Mahamadul Fadal radiallahu anhuma dana mën a yóbbaale njaboot gépp foofa lañ tàmbalee noonu lañ ko toppee ba wër daara yu bëree bëri kon nag ñi nga xam ne noonu lañ taxawoo daara yi nga xam ne ay góor yàlla ñoo ko yor noonu lañ tamee taxawoo daara yi nga xam ne nii ay soxna ñoo ko yor di ci woo mbokki taalibe bi yëpp di ñaan ñu gën a jàpp ci alxuraan gën a jàppale daara yi ak sëriñ daara yi ndax kat eh, alxuraan moom sëriñ Tuubaa suñu borom da koo may eh, malakanil xuraan tam di kan ya doom te suñu borom donnaloo na ko alxuraan suñu borom sax na sax ko alxuraan kon nag alxuraan fépp fu bëtam taawee rek bu gestoo war naa gis njabootuk sëriñ bi te njabootuk sëriñ bi buñ ko waxee ñun taalibe yii ñooy alali sëriñ bi te yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne ahlul ahlul quraan waa alxuraan ñooy ñooñ yàlla kon nag ñu ngi ci soññiwaat bokki jurit yëpp rawatina suñu bokki taalibe yi nga xam ne sañ na leen soññi ñu gën a taxawu daal yi gën leen a jàppale waaye di ko jaarale ci commission bi nga xam ne moom la ñuy tuddee social mu nekk ci biir Touba ci kanam ndax Touba ci kanam di ko tax a jug rek mooy lépp luy jëmale dëkk bi ci kanam te loolu jàpp nañ ni ci saayir bu dajale woon ñaari millions murit murit bu nekk di joxe weer bu nekk ñaar téeméer danañ mën a jëmmal lu baree bëri ndax baatin bi moom sëriñ bi yor na ko waaye saahir si war nañ cee mën a jàpp ci biir Touba ci kanam googu nag la commission sociale bii nekk ginnaaw bu ñu joxee suñuy ñaar téeméer at euh, weer wu nekk suñuy junne suñuy ñaari junne ak ñeenti téeméer ci at mu nekk dañ cee dogaat nag di cee jaayantewaat joxewaat loo xam ne nii ñi ngi jëmaat ci daara yi ak ñi nga xam ne ñoo dëkk dëkk bi seen loxo jiitu seen ginnaaw ci soññ ñëpp euh, nag am na compte xam naa mi ngi affiché wu ci suuf am na tamit numéro Orange Money am na tamit numéro yoo xam ne ku bëgg a jël sa alal jaarale ko ca ñoom danañ da ko ca da nga mi ngi dana affiché wu suuf incha allah bàkkam rek mooy lenn rek mooy li nga xam ne mooy bàkku Touba ci Kanam mooy laaj taalibe suñ Touba yii lu ñu am waaye defal leen ko fu ñu xam ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jafal bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wajalilaay maskani misras mi abi jaayi xayri ma nabaat